et je l'ai dit je dis. Babacar nag mais d' accord mais Babacar Babacar bu bëggee ma bàyyi ko day def lu baax si basket bi tant que basket bi ñu ngi def si ay seen jalgati yooyu seen affaire u band yooyu seen affaire u yooyu mais du ma ko bàyyi te duma ko may fu mu nokkee parce que en fait. il n'a pas droit de faire ça parce que basket bi on a l'impression que moom moom moom basket bi moom moom fédération sénégalaise de basket et je pense que l'État y responsable par rapport à ça parce que on le laisse faire on la regarde faire l'ancien ministre des moom moo indi lii yëpp jeexe jaaxe Matar Ba moo indi lii yëpp parce que en fait il a mis euh, Matar Ba ci benn station boo xam ne mais je ne sais pas moi c'est comme si moom moom basket bi il fait déglu kenn day def lu ko neex xam nga mais loolu nag ñun on peut on ne peut pas accepter

noonu non xas bi c'est normal parce que nit bu defu dara lu baax da koy wax boo bàyyi nit ki muy def lu ko neex di wéy mais ça ce n'est pas bon parce que tu ne l'es pas. ah. Babacar. Babacar Ndiaye yow laay waxal dimbali ñu redresse sa basket la bàyyil affaire yu sew yi ngay def ay saaku ceeb yi ngay kii fii ay ay ay ay diwlin yi ngay di yooyu jëmewul basket bi kanam. mais non non duma ko wax félicitation moom xam na lu mu def. moom xam na lu mu def xam lu mu ba yegg ba yegg foofu <laughs> waaw. li comme guerre. ah <laughs> non dañuy guerre tout